ay ca jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen nuyu di leen siyaar di am mbégte jàkkaarloo la ak yéen seen seen leader bi di people 221 ànd jaak sumay naataango waa Fekke TV waaye ànd ceeg waa Wassare société di nuyu mbenn parce que wax dëgg yàlla sonnoon na ci dossier bi nii mu nekkoon euh, koo xamante ni dafa réeroon euh, depuis 11 jours nit ñi di ko wër ci place bi euh, booba tey kenn nelawul ku nekk ngi woote ku nekk ngi laajte tey nag yàlla dogal mu feeñ fii ci diggante Malika ak Gàddaay ñëw taxaw ki nga xam ne mooy papaam fas yéene Cheikh ak waxtaan nan la def ba gis doomam góor gi maa ngi lay nuyu asalaamaaleykum inna lillahi inna ilayhi raji'un ah man léegi laa toog su kër ga ah, ba Fall kooku moom mooy agent bi liggéey Sénécor moom mooy seen responsable moom ma woo ma kooru xaadim bi feeñ na euh, ci plage ba ma ne ko ah mu ne ma waaw mu ne ma ne kon nag maa ngi nii di ñëw si bi ma egsee ñu présenté ma euh, euh, xale bi nga xam ne moom moo ko gis jaye jël nañ numéro téléphone xale bi sax moom moom mooy ko njëkk a gis moo avisé sapeur yi sapeur yi ñëw nañ euh, waa police yi aussi ñëw nañ mais corps baa ngi nii yàlla sant yàlla rek comme depuis onze jours ñu ngi ko doon xool fu ne dem nañ fi fii benn euh, gert Ndar dem nañ fa di di xool rek ak fii ba Yoff dem nañ fa di xool rek yàlla def nag tey mu feeñee fii diggante Malika ak Gàddaay léegi nag ñu ngi xaar procureur Euh, lum ñu ci wax rek loolu la ñuy def parce que dafa jafe lool fi mu nekk nii ñu jël ko loo tax mënuñu ko laal quoi dañuy xaar procureur rek euh, lum ñu ci wax rek loolu la ñuy def. ci yan anam nga gisee sa doom parce que euh, ni ma ko gisee dafa mel ni pour sappoor laal ko sax day xaw a doy waar. mu mel ni anam bi mu feeñee xaw na doy waar. mu ko anam bi mu moom na doy waar donc xam naa duñ ko mën a duñ ko mën a laal fi mu ne nii quoi parce que ku def 11 jours si ndox mi day naqari pour nga la nga cër boo téye rek da lay donc day naqari. pour ñu ñun ñu ñu ñu ñu laal ko loo tax ñuy xaar procureur ba xam lan lan lañ ñuy digal quoi moom lan la ñuy jox comme comme solution. ku ne xam na ni doom dafa metti nga jur sa doom mu màgg tekki war la euh, teral tey pour ñu ñëwaat ñi nga xam ne ñoo ñu doon seetaan euh, ci nan la demee woon dafa doon génn dem sotti parce que Tëngéej ak Malika xaw na sori aussi. waaw xaadim dafa di xaadim rek dafa wuyu boromam. dafa wuyu turam. parce que xaadim maanaam société ba mu daan liggéeyee muy Sénécor. dafa taxawaloon daayira murit man day yëngatu ci day yëngatu ci loolu soo demee fa fañ dëkk sant yàlla am na daayira murit bu mu fa bokk soo demee Caaroy fa nga xam ne yaayam fa la soqee ko Caaroy sur am na fa daara yu daara daayira murit donc société bi mu doon liggéeyee ñaari société yu bokk la muy Sénécor ak euh, euh, nu Prest kii nu mu tuddati sax société bu ñaari société yooyu daal la boole daal di fay samp daara yi murit léegi nag daayira boobu ñoom dañu amoon habitude at bu jot ñu daje daal di jàpp bés ñëw si ci plage Malika bi jàng fi ay xasi ay xasida naan fi ataaya après daa euh, naan seen café Touba daal di tàggoo bii nag man sax ñu waa daayira bi ñoo ma ne bii mooy seen ñetteel at ñu koy def donc euh, ren ñu ngi ko jàppoon moom moo jàpp bés bi moom xaadim moo fi njëkk aussi defar defar kafe gi segg ko bi bi daayira bi ñëwee mun leen nag tey damay teel a dañu teel a tas parce que dama war a dem euh, Médina ci sama daje boo xam ne bi sama côté yaay ñoom ñoo fay seen famille ñoom ñoo fay daje mu ne kon affaire bi tey day teel a jeex léegi ñu jàng seen xasida ba pare daa di euh, euh, moo séddale kafi tubaab bi moo togg ataaya yi bi mu paree nag nee na day xéewlu ci ndox mi ci la dugg rek ci la des loolu yàlla dogaloon noonu la demee. non non non xam nga bi ñu naanee café gi ba pare ñoom ñëpp dañu tas ñii dem si fi ñuy jaayee fi ñuy jaayee café yi ñii dem côté bee donc bi muy dugg ci ndox mi ñoom gisuñu ko. Hmm. dañu toog ba càgg ñu dégg ñu ne am na kuy lab fële. ñoom ñëpp ñu daje nag bi ñu daje ñoom ñëpp bi ñu daje lañ xool gisuñu xaadim ñu xam ne kon xaadim moom moo des ci ndox mi. noonu la demee. Hmm. d'accord tey nga ñëw fekk sa doom ci nii mu tëddee muy anam bu xaw a doy waar ba sapeur mënu ko laal bi nga ko gisee en tant que waajur loo yëg ah looy yëg lu dul xam ne rek lii la yàlla dogal lu yàlla dogal kenn mun si dara ñun kay dañuy sant yàlla bañ ko gisee parce que amoon nañ njàqare lool pour gis ko wër nañ fu ne mais lii kay suñ ko gisee ak nu mu mën a mel rek dañuy sant yàlla dool di ko sant rek. sant rek waaw def nañ ñette bi amee ñetti fan ñeenteelu fan ba def nañ ci dañ def parce que moom euh, dimanche la fa jóge woon ñu def ñu toog altine gisuñu ko toog talaata gisuñu ko. toog àllarba gisuñu ko ci alxames ba lañ dañ ko defal sarax ñëpp ñëw ci pour ñu mun a yeewi nit ñi parce que dañ daan fees dë dañ doon fees trop ca kër ga ci lañ ko defalee xes saraxam kon amoo ci woon yaakaar avant waaw amoo woon yaakaar wax dëgg fa yàlla xanaa doon dañ ko wékkoon ci ci ci ci borom bi rek ndax Xaadim amoon na soxna non moom 31 la am 31 ans la am il est né le premier août 1993 à Dakar mais jotu doon am soxna donc amoon na 31 ans nag quoi boo ñu wax kan mooy Xaadim ci ay jikko xaadim ci ay ko waroon nga mën a ñëw ci ñeenteel fan boobu ñu ko doon def sarax ci ngay xam ci ngay xam tolluwaayu xaadim ndike man kii dafa liggéeyoon boppam avant muy dem kii missionnaire man dama jàpp ne missionnaire la woon dafa dox si woon mission rek ba mission bi jeexee ca la dem waaw. tey moom. jub jubal ku juboon la. te su gisee ku dëng mu teg ka ci yoon loolu rek la doon doxal doxalul leneen loolu rek ci loolu rek du du du du ko rate xel kom du ko rate lu murit di wootee du ko rate donc moom dafa juboon di jubale donc euh, nii la mënoon demee rek yàlla waxoon ne kii nii lay demee donc ñun ay waajuram dañu sant yàlla waaw. lan ngay wax sénégalais xanaa di masawu di masawu euh, ñi nga xam ne dem laa ne kër ga maanaam koñ. bekk koñ lañ tànt loolu man est-ce que man ko am te loolu moom moo ko liggéeyaa ah. koñ bekk koñ lañ tànt loolu musuma ko gis ba mu juddoo be léegi maa gis musumaa gis ñu tànt koñ bekk koñ loolu moom moo ko liggéeyal boppam man loolu est-ce que man danaa ko am damay ñaan pour am nit lii mu am waaw lii mu am moom man damay ñaan pour am ko waaw ñu ngi lay jaajëfal du ñàkk tamit loo xam ne duñ ko wax xaritam yi parce que depuis booba tey tëngeej sori na waaye ñu ngi gis ay xaritam waaye mooy ñi mooy ñi la wax rek gis nga ki ma ko njëkk a avis euh, informé mooy Fall seen euh, euh, jëwrin foofu ca ca ba moom ma njëkk a woo kon donc waa société bi ñoo fi njëkk di leen sant rek ak côté yaayam ñoom tam ñoo fi nekk nii donc sant leen rek di leen gërëm waaw di leen sant yéen tamit yéen ñi nga xam ne jàpp ngeen ci ba information bi circuler partout waaw di leen sant rek di leen gërëm waaw soxna Mbène maa ngi lay gërëm gisuma la waaye maa ngi lay gërëm di la sant waaw donc donc mu ngi noonu Makan jërëjëf góor gi mu doon lu doy waar loo xam ne nii moo xew fii euh, nga xamante ni mooy plage yu Gàddaay ak Malika mu nekkoon koo xam ne dafa réeroon depuis boobu ba tey ñu ngi koy wër euh, yàlla suñu borom nag dogal tey la feeñ fii nga xamante ni mooy entre Gàddaay ak Malika mu nekk lu doy waar euh, parce que aussi tamit ku ne xam na ni réer dafa metti Makan Makan réer dafa metti waaye nag yàlla suñu borom dogal na ñu gis ko fii gàddaay mais nag dañ ko gis ci anam boo xam ni dafa xaw a doy waar parce que ku yàgg ci plage ku ne xam na ni ndox mi dina xaw a doy waar ndox mi dina xaw a circuler ñun nag boobu ba tey nelawuñ benn yoon aussi tamit maa ngi gis xaritam boo xamante ni euh, frère wax dëgg yàlla magan kii depuis boobu ba tey moom tamit nelawul lekkul guddi lekkul bëccëg mu doon xaritam di xaritu benn bakkanam frère maa ngi lay masaw maa ngi lay masaw tey bi nga gisee sa xarit ci anam wi nii loo yëg. waaw mais kéemaan la euh, li si jiitu mooy wax alhamdulilah rabbil alamin donc di santaat suñu borom ci mhm. dogal yi mu ko dogalee. Mhm. donc la ñu waxoon si njëlbéeg rek ndax li ñu si amoon comme souci mooy pexe ko teg bët. Mhm. donc suñu borom dimbali nañu ba jot nañ si donc dañ ko koy sante naam ak anam bu mënti ñëwee ndax sant gi ngay sant mooy maam am na ñu bari dugg nañ si géej te ba léegi kenn gisu leen. donc li ñuy dañuy delluwaat rek santaat yàlla suñu borom. moom mi ko def moom mi def tawféex ba ñu jotaat si mm-hmm. te loolu si jublu woon waaw te li saa saa nangu nañ ay dogal te loolu moo indi ba nga xamante ni jot nañ ko ñaanal mm-hmm. donc saraxal ko wàccal ko kaamil jàng ko ay xasida defal zikrullah donc loolu moo si amoon solo mm-hmm. te def nañ ko donc depuis boobu aussi ñu ngi ko ànd ak famille donc ànd ak ay dëkkandoom ñoom ñëpp donc ànd ak ñun ñi nga xam ne ñoo nekkoon ay ay ay wóllëreem ay mbokk taalibeem bokkoon aussi service doon liggéeyee donc dañuy santaat rek ci bi ñu ko gisaatee. voilà. mu mel ni anam bi mu anam bi ñu ko gisee xaw na doy waar ba léegi sapeur sax mënu ko laal. lu leer bon loolu bettuñu en parce que bon boo ko tegee si côté scientifique moom. Hmm. lu yàgg si ndox boo génnee day day am melo bu génnee. waaw hmm. ah, waaye n'empêche bi ñu ko gisee xàmmee nañ ko xam nañ ne aussi moom la voilà loolu moom suñu borom def na si taw féex googu nga xam ni lu ñu sikki saaka naan moom la wala du moom. Hmm. parce que la mu duggee woon ci ndox mi loolu yére yooyu la génnaatee. waaw yi mu takkoon aussi ba si aussi mu ngi si ay loxoom mu ngi ma takk. voilà mais daal kii si mu mel ni dem bi tamit nit ñi am nañ ci yaakaar parce que ci liggéeyal Serigne Touba la nekkoon. lu leer lu leer si wàllu daj mooy li ma doon wax keroog rek si vidéo bi la passé moom koo xam ni social la kuy dajale ay doomu aadama la ci anam yëpp nag mooy li ma waxoon la fois passé rek que anam bi ñu fi nekkee woon tey ji ku ko dégg da doon jàpp ni si safaan lañ nekk wala ci saayir ndax boo déggee wàllu géej da nga yaaxal ñu ne ñoo dem di foy wala ñuy taxawal hmm. waaye jublu ba ñu yóbboon leer nañu leer na seen i mbokk donc ciy santaat yàlla te di ko ñaanal tawfeex yi bu ñu paree daal dañuy xool ñu ngi doon déglu waa sapeur ba xam lu ñu ci ak ak waa service d'hygiène ndax ñoom la ñu doon xaar donc police aussi jot na ñëw def constat et tout voilà le reste bon ngi toog xaar ba xam lu ñu ciy jéem a def mhm. d'accord ñu ngi la koy jaajëfal di la masaw parce que boobu ba tey aussi gis nañ ñu ngi ci sonnee gis nañ ñu ngi ci taxaw tamit euh, ñu lay jaajëfal bu baax a baax di la masaw. ñoo sant yàlla suñu waraf lañ def rek. Mhm. ndax ñu nag moom mooy li ñu waxoon rek mhm. dañoo àndool si pour le meilleur. ak le pire donc suñu borom dogal ni dañoo war a ànd ba faw rek. Mm-hmm. waaw te loolu kàddu googu ñu wax seen kër ci ba léegi loolu lañ ne. Mm-hmm. waaw fas yéene fas yéene ñu misoon teggi suñu tànk. Mm-hmm. gis moo tax ba ñoo ànd ak moom ba lii fi xewee. ba sarax beeg ba bu jàllee. waaw yàlla dogal ba ba léegi ñu ngi dem seen kër ñu ngi dem ñu ngi déggante ay mbokkam. te ñoo àndewaat yëfi fii nii. waaw sant yàlla. d'accord ñu la koy jaajëfal. waaw ñu koy jaale bu baax a euh, Makan euh, mu ngi nii ñu ngi leen di jaajëfal ku ne gis na guddi na nag parce que guddi na lool waaye. li ñuy wax rek information boo ko génnee donte waa wasaare société mbenn moo génne information bi mais ñun duñ ko bàyyi ak moom booba tey ñu ngi koy topp ku ne xam na ni dañoo nekkoon di sport ni wala ñu gisee xam ni tennis sport lañ sol mais à chaque fois ñu ngi jéem a def le tout pour jéem ko trouver parce que ki nga xam ne dafa dem 11 euh, jours mu def ko ci géej gi ay waajuram du ñu nelaw famem tamit duñu nelaw mais alhamdulilah ba yàlla dogal na euh, feeñ na li des nag mooy jël ko jébal ko borom di ko ñaan yàlla ko suñu borom yërëm te jégal ko te xaaral ko àjjana ñu ngi leen di jaajëfal ci topp nga ñu doon topp jërë ngeen jëf